université Gaston Berger bu Ndar Géej def na juróom-benni at village ga ca Sànnaar naataangoom ya fa nekk di sàkk yoon leeral ko demuk Ismaïla Madior Fall ca IFAN andi na réeroo ci SAES e tax ñaar fukk ak benn enseignant chercheur yu ca bokk ni kon woote assemblée général mënatut a ñàkk li premier ministre Ilimani Diéwrini Ousmane Sonko ne wàññi dund gi du yomb fii ak ñoo ngi jéggaani as ko seen ne déet ñoom xaaruñu loolu te itam bëgguñu ko dégg nañu ut meneen pexe. liste fanweer ak ñaari bato Sénégal yi nguur gi fesal kuréel gi ëmb mareyeur yi nekk ci réew mi nee na doyul faw ñu amal cib audit ndax bari na ci bato yoo xam ni kon waa biti réew ñoo ko moom làqatoo ku nekk ci dëkk bi te loolu kon mooy dawuk daay far tàbbi ci po jëmb sunu gan tey nara doon professeur euh, Lamine Niang jiite association sénégalaise d'urologie nara dellu si ci ñetteelu congrès bi ñuy tàmbali suba ca Saly ànd ko kon lu gàtt gàtt ñeenti téeméeri boroomi xam-xam ci wàll wi bàyyi ko fu nekk ci àdduna bi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 Cheikh Anta Diop. fii ci ci Kër Marouba Gueye digganteem ak l'hôpital bi daanaka sorewul tali bi rek ko dox seen diggante kër gi mi ngi fees dell ku ci nekk ñëw di jaala si ki fi du tey di Abdou Aziz Gueye ñii di ay mbokkam ak ay xaritam ñoom ñëpp ñu ngi ci njàqare nee nañ li médecin bi wax ci point de presse bi mu doon amal bari na ci lu lëndëm ak lu leerul te gëmuñu ko Lamine jege woon lool waaye dawlu pendant quinze jours bërki démb lay doog di dugg balak te yañ ko waree faje yëpp taxaw na ñëw na ça une semaine bu mu ñëwee mais dañ ko négliger ñun amuñ ci lu dul mu dugg balok bërki demb ca quinze heures mu faatu waxuñ ko nit ñi waxuñ ko ay mbokkam ba après timis lañ lañ koy doog di annoncé ni faatu kon loolu nag dafa am leneen lu ci luus luñ ñu waxul loolu lañ bëgg xam nag nañ ñu wax li xew. askan wi fii ci Tiwaawan ñu ci bëri nag mer nañu. nee nañu sax mbir mi duñu ko bàyyee noonu dañ ko yóbbu ci yoon. ñoom famille bi buñ ko deful ñun ñi ay xaritam ñoom ñu def ko. Abdou Guèye mii magam la. waaye nee na lu mu gis ci hôpital moom Abdou Aziz Sy baax bu Tiwaawan lu doy waar la te war nañ koo lañ. waaye bu fekkee dañuy def opération échec. dañ nangu ni loolu moo am ñu nangu dëgg ji mu jeex amul problème. non maanaam xam ni problème mooy hôpital Tivaouane. lii na yii dañu bokk ci yii feeñ. ñaata yoon la fi xay xaale dee. opéré jigéen di ko ay di ci biiram. muy infecté nga koy jël léegi loolu am na ci hôpital Tivaouane. waa Tivaouane ndaw ñeeg jigéen ñi ñu ci bëri nag ñu ngi waajal nee nañu doxam ñaxtu bu ñu fas amal ci ngir wax li leen metti ci l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy baax bu Tivaouane RFM Thiès Cheikh Anta Diop ñoom dawalkat yi jakarta yi rawatina nag képp ko yore moto ne accident yu metti yi rawatina nag ñoom ñi ciy faatu ñoom la gën a naqari tax ñuy sàkku ñu dimbali leen ci euh, kon seen dem bekk dikk bi ñu gën koo daal di euh, ñoŋal Mamadou euh, Ndiaye moom moo jiite réseau sénégalais yi nga xam si ñoo yore deux yi ñu teewlu ko Ibrahima Diamé li nga xamante ni moo xew tey ci Sénégal gis nañ ñi tey képp kuy chauffeur wala ngay conducteur rek lii concerné na ndax gis nañu Sénégal léegi kenn ku nekk lu la neex ngay def te dëkk warul doxee noonu constaté nañu aussi vraiment accident yi métti na dañ koy jooy fu nekk mais tamit xale yi nga xamante ni aussi ñoo yor les deux nañu gën a defar seen ay comportement ci kaw tali bi parce que gis nit ki aussi muy dawal moto du sol casque du sol chaussure fermée du sol ay gan boo defee choc ah mën nga ci ñàkk sa bakkañ wala nga gaañu ci gaañu boo xamante ni vraiment nga génn àdduna sax moo koy tane ndax am na gaañu yoo xam ne moom da lay topp à vie donc ñaanaluñ ko kenn ñi ngi interpeller aussi suñu ministre tutelle le ministre du transport ni ko na woo njabootu dawalkatu deux roues yi ñu toog devant une table ñu waxtaan ci lii nga xamante ni moo xew ci Sénégal li ñu bëgg nag mooy ñun nuyu régulariser secteur bi jàppale xale yi ci ay permis de conduire nañ leen jàppale ci ay formation képp nag ko xamante ni nag gis nañ ko muy def naka sudu noonu loolu nag na yoon def liggéeyam am na tamit lu ñuy constaté parce que tamit vraiment nekk ci naqar terewul tamit ñu wax dëgg parce que gis nañu tamit le conducteurs de deux roues des fois dañuy jaar fi BRT bi di jaar te loolu vraiment ñu ngi koy ñaawlu rafetlu wuñ ko dembeek dikk bi bi la yoon borom oto yi ñoom nag nee nañu samedi bii di ñëw dinañ wàcc ci mbeddi ndakaar yi ñaxtu ngir nag naqarlu taxi en ligne yi ni ñu leen sonale woo nañ ci itam jëwriñ ji ñu dénk yees wàllu dem dikk bi ngir mu dalal leen ñu wax ko li leen metti Malick Diop moom mooy seen secrétaire général ñu teewlu ko ak RFM. secteur transport mi ngi dund ay jafe-jafe. particulièrement taxi yi. di dénoncé tamit décret bi nga xam ni président sortant euh, le président Macky Sall jël na ko muy le décret 847. bi nga xam ni dafay légaliser li ñuy wax VTC. te loolu ñun bis buñ ko nangoo day suuxal day diigal transport bi nga xam ne moom la fiy fekk muy transport classique bi. di bëgg it boobu ba léegi ñu ngi koy sàkku ci nguur gi pour mu jàppale euh, secteur bi fi nekk muy secteur transport pour ñu dem ci wàllu renouvellement parc. parce que xam nañ ni parc bi dafa màgget joxeetul qualité de service qualité de service bi nga xam ni moom la population bi day xaar ci ñun. raison yooyu moo ñu poussé nag ñu ne incha allahu rabbi samedi bii di ñëw dëppook euh, fukki fan ak juróom-ñett weeru mai. dañ amal marche motorisée jël VDN bi pour wane opinion nationale beeg internationale que ni secteur transport bi nga xam ne moo nekk Sénégal mi ngi dund ay jafe-jafe yu métti. loolu nag tous les acteurs ñoo ko ànd di ko defandoo incha allah pour dénoncer encore une fois clando en ligne yi muy application multinationale yooyu nga xam dañu ñëw déranger suñu système de transport ak décret bi nga xam ni président sortan Macky Sall moom la jël pour légaliser li nga xam ni mooy euh, système VTC ñuy demander ñu abroger décret boobu. ngeen di wéy di déglu xibaar yi guddi gi ci rajo Futur Media juróom-ñeenti waxtu moo jot ba tegal juróom-benn simili yi. ak RFM kumpa jeex na. Fallou Sène mooy étudiant ba faatu woon ci ay jaamaarloo ki takk der ca biir université Gaston Berger ba nekkee ca Ndar Géej def na juróom-benni at boobaak léegi tey jii nag suñu ndaw foofee dellu ca village d ba nekkee ca Sànnaar nga xam ni foofee la nekkoon ay naataangoom di sàkku yoon leeral mbir mi ba tey Ousseynou Diop. village de bu université Gaston Berger bu Ndar étudiant bii di Fallou Sène ñu assassiné ko ci atum 2018 fii la dëkkoon ñu fa nekk di ay ñu demaat leen ñoom nag bopp la ñu bëgg mooy mbir mi leer ca université Gaston Berger bu Ndar. mais ñu koy affaire la ba nga xamante moom chaque jour étudiants yi dañu koy bu baax a baax comprendre chaque jour étudiants yi ñu ngi laaj justice. ci kanamu néeg bi nga xamante ni Fallou Sène fa la dëkkoon ñu daal fay def photom photo boo xamante ni ñoom étudiants yi nee ñu la ñu bëgg mooy seen morom yi di ci roy jàpp ni am na seen benn morom boo xamante ni mi leen doon xeexal ba ñàkk ci bakkanam Maguette Ndiaye étudiant la ci village D. comme moom mun na ko jàppee comme une légende quoi moom ku baax la woon fii quoi. waaw ah, c'est pourquoi ñu defar ko lii pour que même boo dëkkul si village boo ñëwee si G bi nii boo gisee photo bi nga ñaanal ko loolu lañ loolu lañ ko desee ko am ndax moom dana xeex pour ñun. Fara Diatta moom néeg ba Fallou seen dëkkoon fa dëkk nee na lu ci bare mbiru Fallou Sène day desiwaat ci moom. xar lañ ciy jëlee ah na parce que suñu sañoon tey. ñu xam euh, justice justice am ñu xam carrément lii moo xew mais ba tey dara dara changé aussi quand même. ñëw da ngay jàkkaarloo photo Fallou Sène ça te rappelle des mauvais souvenirs. juróom-benni at ginnaaw Fallou Sène ba mu faatoog léegi dafa mel na dossier am na muy doxee doxu kàkkatar la moo tax nag étudiants yi jàpp ni yëpp dafa war a leer ngir waaye juróom ak ñi nga xamante ni ñoo ko bëggoon mën a xam kan moo faat seen doom. Ousseynou Diop Saint-Louis RFM. Ousseynou Diop euh, Université Cheikh Anta bi nekk ci Dakar moom coow li fi juddu moo di jógeeg professeur Ismaïla Madior Fall ca fac droit dem ca IFAN tax nag SAES réero am ci seen biir. ñaar fukk ak benn enseignant chercheur yu ca fare nag daal di xaatim ab bataaxal ne faw ñu amal ci ab assemblée général su ko defee nag mbir mi ñu xam fam la féete dëgg-dëgg waxtaane ko itam professeur Mohamed Abdallah Ly ci ñoom la bokk ñu teewlu ko gannaaw jokkoom ci téléphone bekk Mamadou Oumar Ba. Euh, dañoo toog bés assemblée IFA mi ngi am 30 avril bi weesu directeur bi ñëw tudd ci wax bi tudd ci affectation boobu noonu wax li nga xam ne moom la ko ci recteur wax euh, ni bëgg nañ ko indi Ismaïla Madior Fall te euh, benn yoon comité scientifique bi waxul benn yoon fa mu jógee muy faculté droit waxul amul benn laboratoire wala benn département bu ci at donc affaire bi nag jaaxal ñu ndax daawul demee noonu benn te la war a demee bi loolu amee nag SAES e xam ni ah dëgg-dëgg ñun ñu jàpp ne ñun moom la war a xaatim ab bataaxal daal di day défendre Ismaïla Madior Fall bi nga xam ni wax dëgg yàlla Sénégal yëpp xam nañ ni moom laaminam nekku ci poosam wax moom yàlla may na ko mën na wax loolu te mën na défendre boppam ñun sayes bi ñu xam sayes autonomie di nirowu ko te yoon may nañu booba ñun ñu xaatim ni ah lii coordination bi wax de ñun ànduñu donc loolu mooy affaire bi mhm. léegi lan ngeen bëgg exactement yéen lu ngeen di laaj sayes waaw li ñu wax li ñu bëgg wax nañ ko ci bataaxal bi euh, nga xam ni parce que sayes ni mu tëddee dafa am ay nekk dafa am li ñuy wax coordination bureau national sayes euh, moo leen féete kaw moom mooy jëwriñ donc ñu wax bureau national na xool Euh, bataaxal boobu biñ koy biñ koy décider ci yan anam lañ ko décider ñaare bi itam ñu wane ñun suñu naqar ci bataaxal boobu wax ne am na ñu ci ñetteel bi nag mooy aussi ñu déglu base bi waaw parce que loolu aussi charte moo ko mayee euh, ñu war a déglu ñi nga xam ne dañuy dem di wax ci turu syndicat bi bu dee dafa am jafe-jafe wala lëdd pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. cib conseil interministériel bu mu doon jiitee ca Diamniadio fa la waxe moom ilimaani jëwriñ yi premier ministre Ousmane Sonko ne wàññi dund gi ñoo nga ca te dinañ ko def waaye nag du yomb benn yoon ndax li ñuy jéggaan yi dafa bari waaye nag loole euh, la waa Ascosen ca Kaolack ne mënuñu ko dégg te itam nag li ñuy gën a xaar ci nguur gi fi nekk ak yaakaar ji bokk na ci ñu wàññi dund geek li ñuy jëfandikoo daar daar fàttu mbow kuréel bi ëmb woy jëfandiku yi te mu nekk fii ci diwaanu Saloum na te am mbégteel loolu rax si dolli naqar gannaaw déclaration wu élimaanu jëwriñ yi ci lu jëm ci wàllum wàññi li di dund gi njiital bi El Hadj Abdou na Jonat yooyu le autorité dañoo war a sàmmonteeg kàddu yu ñu waxoon ci bu ñuy amal lii di campagne électorale la. tey la 15 sénégalais ñëpp a doon toog di xaar pour que dund bi mu wàññeeku. mais suñu mbégte la suñu tiitàng bi ñu déggee premier ministre mi lancé ni kaddu gi nga xam ne moom la wax. yaakaar naa ne war nañ mën a fexe ba li nga xam ne liggéey bi nga xam ne moom lañ defoon sénégalais wàññite boobu noonu war nañ ko mën a respecté. dajeeg moom ci mbedd bi Ousmane lu am solo la na si askan parce que képp koo xam ne borom kër la soxla nañu wàññi dund mais dafa fekk Sénégal dafa jaxasoo woon parce que àdduna patience dafa am solo ci doomu aadama kon boog nañ patienté may leen ñu liggéey xam ne ni ak ñoom kóolute gu ñu am ci ñoom ba fàlle suñu yaakaar du ngir xeex jële fi nag dund gu cher gi implication acteur yépp lu war a mën a nekk la di kàdduy Ascosen ñii di sàkku ci njiitum réew bi Bassirou Diomaye Faye les consommateurs actuellement ñoo xaar benn yoon dogal bu tembe bi ñu ji mooy nag ñu convoqué bépp acteur yu si mel ni euh, kuréel yi fi nekk nekkal way jëfandiku yi euh, grossiste yi ak boutiquier détaillant yi ngir nag ñu saytu mbir mi tax nag dañuy sàkku ci njiitum réew bi mu bañ a nag décevoir kenn. de ne pas décevoir les Sénégalais. xaarandi bi daal di nay yàgg loolu yaakaar bi daal di rëy itamit tax ba yenn ci ay woy jëfandiku yi nekk fii ci diwaanu Saloum di alerte ci seeraayu njëgu dund bi nga xamante ne mu ngi woy di tere nelaw askanu Sénégal la. Fatou Mbow Kaolack rajo Futur Media. Fatou Mbow bokk na ci li nguur gi fi nekk jot def mu di fésal listub bato yi nga xam si ñoo fekk baax ci réew mi te war a nappe ci waaxi senegal yi association bi ëmb nag mareyeur yi nekk ci réew mi nee loolee doyul faw ñu amal ci ab audit ndax nag euh, njort na ni xam na ci euh, bato yoo xam si ñi ko moom biti réew la ñu bokk te loolee daanaka benn la. ñu teewlu ci euh, Mouhamed euh, Silla Pape Ibrahima Diaw moo wax ci wolof ak pap mbay Diaw. parce que depuis 2019 ñun ñoo doon jooy danañ gënalee listing des bateaux ñoom ñu ñëw amaguñu un mois ñu andil ñu listing des bateaux listing boobu ñu andil 32 bateaux sénégalais 32 bateaux sénégalais yi ñun li nga xam ne mooy suñu participation mooy pavillon sénégalais yi. li ci étranger yi duggee dafa yomb parce que ñun suñu pavillon buñ nee ak presque loo mat ay 50 nangam bateaux ay bateaux étranger ñoo ko ay chinois xam nga loolu dugg bi moo yomb moo lay wan ne ay prête non ñoom ñoo nekk ci bato yi parce que moomuñu ko ay prête non lañ kon donc loolu aussi ñi ngi ñaan audit bi nga xam ne ministre wax na ko nañ audité nekk am huit xam ne étranger nga amoo droit jaay jën Sénégal parce que carte barrière boobu ku amul nationalité sénégalaise waru ko am te ñun ñu gis ne suñu réew mi léegi dafa mel ni vraiment étranger yi dañu bëgg ñëw nangu ko suñu loxo au détriment des mariés kon donc loolu bokk na ci tournée yi nga xam ne ñu ngi ko doon def fexe aussi marché yi nga xam ne ñun ci lañ nekk di ci liggéey càmbaraat liggéey bi xool nu mu gën a baaxee ba nga xam ne jigéen ñi nga xam ne ñoo ne ci marché yi ak jigéen ñi di jënd ci jënd nañ mën a fexe ba am consommation bu yóbbu coowul suuf li am ci ndakaaru rawatina ci pegg yi géej gi ay spécialist jàpp ne nag commission ad hoc bi ci nguur gi di euh, sàkku loolee gisuñu njariñ le la tax ñu wax ko wax nañ ko Abdourahmane Diallo. dogal yu nguur gu bees bi daal di jël ci lu jëm ci wàllum suuf si teg nañ ko ci yoon bu ñu sukkandikoo ci ay universitaire waaye gisuñu lan moo war a tax ñu tëral ab commission ad hoc ngir def ay vérification Mamadou Diangar spécialiste droit foncier la ak domanial. boo xoolee ñu nekk ci commission bi yaa ngi gis waa commission des opérations domaniales waa ngi gis waa waa DESCOS et yaakaar na ni ñooñu xam nañu ku nekk fan la jaar ba am am pour nekk ci corniche bi bu weesoo loolu am nañu ce conservation foncière munoo am bail wala titre foncier te ñoom binduñu ko seen registre. ñi seen xam-xam màcc ci wàllum droit jàpp ni sax ñaari weer ngir saytu ñu nekk ci yoon wala ñu nekkul ci yoon diir bi dafa bari Cheikh Abdou Wahab Ndiaye spécialiste droit des affaires ak droit foncier. décision la boo xam ne nag conséquences yu oyoful ndax li tax conséquences yu oyoful mooy ba construction yooyu noonu ña fay tabax mën na am ne yow jël nañ ko yóbbu ko ci yi ñu lebal leen ko ña fay tabax dañuy yoo xam da nga yoo xam ne ñu ngi fay au jour le jour donc conséquence économique bi dafa am doole ñaari weer la ko ab buñ ko mënoon de gën a gàttal sax moo gën. ñoom sax ñu ngi ñaax kilifa yi fexe daal di ànd ak dal ci dogal yi nga xam ni fas yéene nañ ko jël ci mujjantal ga ci coowal suuf si Mamadou Jàngaar ak Abdou Wahab Ndiaye. ndax aussi Sénégal dañu war a éviter jóge ci li ñu naan ci droit insécurité judiciaire ñëw tàbbi ci li ñu naan insécurité juridique. ñi nga xam ne amuñu kayit ñu ne leen arrêté leen a littoral bi mu jaar procédure expropriation wala retrait de de bail indemniser leen. universitaires yi nag ñoom ñëpp ànd maase benn mbir jàpp nañ ni ci lu jëm ci wàllum suuf si war nañ ci amal ay réforme yu yaatu ñam sax dañu doon amal ab conférence publique ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru li ñu doon waxtaanee mooy coowal suuf ci réew mi rawatina lu ci yoon daal di wax. jaajëf Abdourahmane Diallo jaaykat ya nekkee ci commune bu ñàgg dégg ngeen leen ci suñu xibaar yu weesu ñuy ñaxtu ne nag dañ leen a bëgg a jëlee ca fa nekk. maire bu ñàkk euh, di Momar Soxna Diop andi na ci ay leeral ne loole ci ajuma bi lañ koy amal su ko defee euh, ñu daal di fay gën a ñoŋal kaaraange waaye itam képp ku nekk foo wata nekk ñu jëlee la fa nee na itam ñeen fay jëlee am na beneen pàkk boo xam ne dinañ leen fa yóbbu ñu teewlu ko Aminata Ba. du bu njëkk nag njëkkoon nañ ko def Tivaouane ñu ngi koy def si ñàgg te dégrépissement la boo xam ne conseil municipal bi daf ko laaj ndax liñ ci jublu ñaari yëf la yëf bu njëkk bi mooy occupation voirie publique ay nit dañoo ñëw di samp ay cantine di jaay ci foo xamante ne si ay trottoir la war a nekk wala foo xamante ne si ci yoon nit boo fa samp dara di fa def loo xamante ne si autorisation amuloo ko ci beneen bi muy benn raison boo xamante ne si dafa am solo muy sécurité ndax nit ci léegi seetlu nañ nekk ci kaw tali yi la ñuy dox amatul te loolu day indi ay jëy jamono yi paase rek ci ñàgg am na benn euh, accident bu fa am boo xam ne euh, yàlla moo ci def ndox bu sedd waaye mënoon na jur jàngoro boo xamante ne si duñu xam fan lañu koy waxee kon nag day décision boo xam ne dañu jël décision defar trottoir yi defar dëkk bi noo xamante ne si dana neex dem neex dikk ñëpp a ko rafetlu te xëy ñu rek def ko dañoo jàll ci ay waxtaan kenn déguerpirul marché bi ndax maa ngi dégg commerçant yi di ko di nekk dañ leen déguerpir ci marché bi déedéet ñi occupé voirie publique bi ñooñu la ñuy déguerpir incha allah ci ajjuma bi ñi ngi wax tamit ci waxu booy déguerpir da nga am fa war a dugal doomu aadama yi ci waxtaan d'ailleurs pour xool xool beneen site boo xam ne amoon nañ ko fii. Kader ña nekkee ca Dandemaayo bi moom euh, nawet bi jub si moo leen tiital ndax ne euh, bëri na yoon yu nu fa tàmbali te ba tey euh, àggul te nag ba fii amul benn jéego boo xam si def nañ ko ca tey ji sax préfet bu kaneel wàccoon na ca terrain ba di xool fa mbir ma toll. Ali Bandel Niang. gannaaw bi ñu fëggee seen gémmiñ di woote wàllu gannaaw itam bi météo siwale ni nawet gi na teel a tàmbali ren préfet bu département bu Kanel dafa sol dàllam wàcc si terrain bi dem nemmeeku liggéey yi ñeel defarum yoonu dandemaayo bi waral coow li Cheikh Ahmed Tidiane Ndoye xool ndax recommandation CRD prévention lutte contre les inondations ndax ñu ngi koy amalam de ndax fi zone la boo xam ne bu nawet jotee ndox yëpp fii lay agsi defar yoon da ngay yëkkati suuf si léegi li ñu tax a jóg mooy ñëw xool. baa du jur ay mbënd. gannaaw bi ñu dal. département bi tey déplacé nañu ñëw nañu gis nañu euh, ils ont rassuré aussi Azoroute nga xam ni mooy maître d'œuvre projet routier bu gudd bi toll ci téeméeri kilomètres ñu war koo defar goudron tax na kon ba Boubacar na nekk contrôleur travaux yi xamal askan wi ne ab dispositif la ñu mettre en place ngir ottu inondation yi ministre bi nga xamante ni moo yor wàllu yoon wi dem weeg dikk bi dafa joxoon ndigal Azoroute ñëwaat sur le terrain euh, xool yan disposition la ñu war a bu ko defee bu nawet bi ñëwee jafe-jafe yi nga xamante ne xool nañu ak entreprise yi nga xamante ne ñooy liggéey sur Dandemaay yëpp ñoo jël les moyens matériels ak personnel yi nga xamante ne dinañ ko soxla. lu ko jëlee nawel ba dembankaani tournée bi ñu doon amal ci tere bi tax na kon ba ñu nemmeeku tolluwaayu liggéey bi ñeel defarum yoonu Dandemaay bi nga xam moo war a désenclaver lu ëpp juróom-ñett fukki dëkk yiy longer dexub Sénégal bi mu nekkoon sa naataango waa Bandel ñaa fi ci doonu Matam pour RFM. bàkk bi tàggat yaram lay yëgle ak ñun ci studio bi Pape Malick maa ngi lay nuyu. di la fay bu baax Serigne Saliou Seck. ñu tàmbale kook tournoi IFOA ci U20. ci wàllum jigéen ñi lay daal di doon ñoom ñi nga xam ne ñu ngi waajal euh, boobu les compétition fii ci Stade Lat Dior bu Thiès nar a tàmbali ñaar fukki fan jëm euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci euh, weeru mais kii nga xam ni noppi dañ ci amal tirage au sort yi sore ci am dellu si ci li nga xam ne moom moo di poule A boobee Sénégal ak itam poule bi.

ak Guinée Bissau ci poule B bi dañuy am Libéria Sierra Leone Guinée ak Mauritanie. ñu daal jàppale nañu avec euh, comité local bi ñu teg en place ba lépp daal yemb na bu ma sañee ni dinañu dem si benn tournoi bu mucc ayib. gannaaw première édition bi nga xamante ni ñeenti équipe ñoo ci bokkoon ñu amalee ko woon ca Sierra Leone bi la yoon nag juróom-ñetti équipe ñoo ciy bokk loolu nag nar gën a yëkkati niveau tournoi bi bu ñu sukkandikoo ci directeur des compétitions. donc dafay wane ne rek topp li ñuy def ñu ngi te loolu daf ñu permettre dinañu àgg fi ñu bëgg àgg mooy euh, maanaam suqali footballu occasion bi et vraiment yu bari seen tànk am ay équipe yu baax. gi nag ma ngay tàmbali ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ca weeru mais ca stade Lat Dior bu Thiès gannaaw phase de groupe yi nag ñaari équipe yi nga xamante ni ñoom ñooy féete kaw ci pôle bu ne ñooy qualifié dem ci demi-finale yi. jaajëf Soda Thiam ñu utali Europe wax kon. Euh, ci euh, football bi foofee France Angleterre Espagne ak Italie. ñu tàmbale ko ca France ñoom ñi nga xam ne ñu ngi doon doxal seen trente deuxième journée ñu jàpp ni Paris Saint-Germain mi noppi ne doon champion daal di fekki Nice daan ko ñaari bal ci benn ci boobee jamono ki nga xam ne moom moo di Marseille moom Reims moo koy daal di euh, freiné ci course titre boobee nga xam ne ma ngay yóotu sixième place bi ba tey moom nag Reims mi ka dalal moo ko daal di daan kon benn bal ci dara ca Angleterre ñaari moom la ñu amaloon ci fanweer ak Nicolas Jackson doonoon titulaire euh, daan Brighton ñaari bal ci benn doomu Sénégal bi jotuloo dugal bi ci bilee jogante ci boobee jamono Manchester United moom daal dinay daan ki nga xam ne moom moo di Newcastle ñetti bal ci ñaar ba tax na jamono ji itam euh, place bi yóbbu euh, wala boog place bi mujj yóbbu club foofee ca Angleterre ci Europe Chelsea moo fa daal di taxawandi jamono ji di juróom-benneelu place bi ca Espagne. Vallecano bu Pathé Ciss gën naa jege descendi ci wàllum liga bi benn poñ moo ko teree kon euh, maintenir ci li nga xam ne moom moo di liga bi gannaaw tey ba ñu daanee Grenade ñaari bal ci benn ci yeneen jongante yi ko fekk si daan ko benn bal ci dara jamono ji ñu wax ak yéen ñaari jongante ñi daw Celta Vigo ak Bilbao ñoom Bilbao ñoo jiital benn bal ci dara jamono ji itam Atlético Madrid ma nga jiital Xetafe ñetti bal ci dara ñaar fukki simili ak juróom moo des ci yooyee ñaari jongante jeexal ko ca Italie fa nga xam ne ña ngay amal ji finale Coppa Italia Uh, Juventus moo mujj jël raw gàddu gi benn bal ci daral daal di daan Atalanta Bergam kon Juventus yëkkati li nga xam ni moom mu di Coppa d'Italia Frecciarossa maanaam le train à grande vitesse. ñu des ba tey ca Europe wax bi la yoon ci club yu Premier League yi nga xam si li ñu bëgg moo di voté ba ñu dindi VAR bi. loolee moo di seen taxawaay jamono ji nga xam ne Wolverhampton moom moo daal di taxawal lu ni mel ba tax na ci bëccëg yi ñu jëm daañu amal li nga xam ne ni moom moo di euh, vote googe nga xam ne juróomi fan euh, wala boog juróom benn fan ci weeru juin lañ ko nar a amal euh, vote boo xam ne vingt club ñoom ñoo koy daal di voté bu fekkee ne nag fukk ñeent yi daal di nañu d'accord ci ñu dindi VAR bi. le du mënta taxaw ci li nga xam ne ni moom moo di euh, foofule ca Angleterre waaye euh, kii di président de la commission fédérale euh, bu arbitrage ca France moom jot na dellu si ci li nga xam ne ni moom moo di VAR gee ñu bëgg a dindi ci Europe moom nag lii moo di woon ay kàddoom ngir défendre li nga xam ni moo di VAR bi. je pense que c'est une aide je vais vous donner moi la defe naa ni ak lu ñu mun di wax VAR bi itam euh, day dimbali bu baax a baax mën naa leen jox rek statistiques yi ma yor daanaka 75 pour cent ci décision yi nga xam ne amal nañ ko ci terrain bi te baaxul woon VAR moo ko jubbanti. dëgg la ni nag des na 25 pour cent waaye wax dëgg yàlla vaar am na itam lu mu yokk bu baax a baax ci football rawatina ci jubbanti yi wax dëgg yàlla kon am na bu baax a baax lu mu indi indiwaat ci football booy xool sax moo tax club yu ci bëri xëy dindi vaar ci football waaye nag man fi may d'accord rek moo di il faut que ñu wax dëgg yàlla gën a defaraat système bi waaye nag man ci li may taxaw rek moo di arbitre yi faaw ñu gën leen a dooleel lu ci mel ni par exemple match boo xam ne 0-0 la ñu dem ba temps additionnel ñu siffler penalty même bu fekkee ni wóor na arbitre bi faaw mu dem xoolaat ngir gën a mën a dëgëral boobu les décisions naka noonu itam ci ndorteelu match ndax ñu ngi gis lu ci bëri léegi euh, ci tàmbali gi day am carton rouge nga xam ne daanaka itam day basculer bu baax a baax match bi même bu fekkee ne arbitre bi carton rouge boobu wóor na ko na dem ci VAR gën a mën a dëgëral décision kon booy xool ci VAR xëy na am na ci poñ yu ni mel yoo xam ne war nañ ci mën a sukkandiku xoolaat ko gën koo dëgëral man loolu moo ci sama xalaat. Euh, intéressant d'expérimenter. ñu daaneele wax ci athlétisme ak grand meeting de Dakar bi tàmbali ñaar fukki fan juróom ci weeru mai ca terrain annexe bu stade président Abdoulaye Wade muy édition bu am solo ndax bile édition day daal di jox ay poñ athlètes yi nga xamee ni bëgg nañu qualifier ci euh, Jeux olympiques Paris 2024 kon muy meeting de Dakar boo xamee ni itamit daanaka amal na ay coppite ci lu bëri bëri ci noonu ñu teewlu ci kii di vice président fédération d'athlétisme bi di El Hadj Bara Thiam ci jokkoom ak Youssouf Bodian dañuy waajal li ñuy wax euh, Jeux olympiques de Paris deux mille vingt quatre nga xam ne meeting bi dafa bokk ci compétition yi nga xam ne World Athletics daf koy bàyyi xel bu baax ndax athlètes yi ciy ñëw di ci joŋante dañuy mën a am possibilité suñu defee performance yu baax qualifié pour euh, Jeux olympiques deux mille vingt quatre donc ñu ci bëri dañuy ñëw pour wut si qualification donc loolu mooy cachet bu bees bi ci am ren beneen bi ci top mooy dañoo jógee meeting bronze nga xam ne organisé nañ ko ñaari at yu mujj yi nii World Athletics yéegal ñu meeting silver meeting silver moo ëpp dayo moo ëpp niveau parce que buñ ci jógee ci si ñaari at dañuy yootu meeting or loolu nekk aussi lu am solo parce que loolu bu ko nit ñi déggee rek dañuy ñëw daw pour bëgg daw si meeting bi ñu ngi ciy xaar ay athlètes lu tolloo ci cent cinquante athlètes yoo xam ne dañuy jógee ñii Afrique ñii diaspora bi am na nag lu war a mat